mercredi 13 novembre 2024 mbokk yi amati euh, mbégte bu baax a baax retrouve leen ci seen euh, matinale d' information matin bonheur ñoo ngi leen di nuyu euh, fépp fu ngeen munti nekk ci réew mi comme ni ngeen tàmm di ànd ak suñu ay programme maa ngi amati mbégte bu baax a baax retrouve leen ci matin bonheur comme ni ngeen koy xamee également chaque matin dinañ waxtaanee. Euh, wàllu actualité actualité nag fu mu toll nii ci réew mi euh, politique bi daanaka moo gën a fës ndax euh, dañoo nekk ci fan yu mujj ci campagne électorale bi candidat yi ku nekk yaa ngi yëkkati ay kaddu di jéem a convaincre waaye aussi di yëkkati vraiment li nga xam ne moom mooy say li mujjanteel ci sa ci campagne bi ngir mun koy yóbbu foofa ca assemblée nationale mais du ma ci plateau bi dama ci ànd ak Cheikh Kébé di sama naataango Cheikh maa ngi lay nuyu naka suba si. Abdoulaye maa ngi lay fay bu baax suba mm. sa ngi ne sant yàlla bu baax. yaa si jàmm bu baax. alhamdulilah. mbaa jël nga sax kafe bu baax. Euh, jël naa dose nag. Ah. jël naa dose matinale bu baax a baax. yow doo naan café quoi. man non non loolu may naan mënoo koo xam <laughs> <laughs> maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan rawatina suñu invité. Mm. d'accord Cheikh be moom dina fas yéene ànd ak moom ci waxtaan bi waaye tey dañuy am également ñaari gan donc euh, bu si njëkk mooy euh, Mamadou kase bokk ci coalition euh, ànd dooleel liggéeykat yi muy coalition boo xam ne aussi dafa bëgg a dem foofu ci assemblée nationale ci ñaareelu parti bi dinañ am Omar Sow bu coalition jàmm ak njëriñ bu du baax donc Mamadou kase moom mooy suñu gan ci première partie bi Mamadou kase maa ngi lay nuyu di la dalal ci matin bonheur. Ibrahima bu baax. di leen nuyu di la jox sa wàccuwaay euh, di jaare suma frère bi di leen nuyu di nuyu waa 2STV yi di ñaan suñ borom may ñu émission bi ñuy def mu bokk ci émission yi nga xam ne dina gindi askan wi mais dina leeral lu bëree bëri. Mm-hmm. di ñaan suñ borom may ñu ñëpp jàmm ñu jeexale campagne bi ci jàmm. Mm-hmm. am na solo dinañu yaatal ak waxtaan bi ak yow waaye tamit dinañu ñëw eh, ci wàllu actualité fas yéene waxtaanee un peu ponk yi nga xam ne moo gën a fës ci wàllu actualité comme ni ngeen ko xamee eh, démb eh, même bu fekkee ñu bëri ñoo ngi doon xaar xëy na confrontation am la bataille de dakaar comme ni ñu koy waxee mais le pire quand même a été évité un peu parce que gis nañ ne quand même ki nga xam ne mooy leader bu Pastef euh, même bu fekkee dem na fi nga xam ne mooy euh, rond point euh, école normale bu demee également Baobab mais woote na jàmm mooy premier ministre Ousmane Sonko ci kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko démb en tout cas loolu la ñaan ñi nga xam ne ñooy ay partisans mooy maanaam ñu def élection ci jàmm donc muy discours boo xam ne ñëpp moom lañ doon xaar ci moom moom Ousmane Sonko ci digganteem ak Barthélemy Dias donc fu ñu toll nii daal jàmm dellusiwaat na nañ ku nekk delluwaat ci sa campagne démb démb foofa ca rond point école normale moom Ousmane Sonko am nay kàddu yu mu fa yëkkati euh, dañ koy déglu ñëwaat commenter actualité boobu. fi xaj nañu dem élection ci jàmm yëggale ko ci jàmm caravane bi nag mën nañ ko sax yemale fii parce que yéen parce que ba noppi te suba xam ngeen ni journée bu gudd lay doon suba ñi nga war a commencé dellu si Kër Massar def Pikine tere ji waaye ci terrain meeting bi gannaaw ëllëg ñu teel a xëy continuer dem def Vélingara def Medina Fura dugg Bignona man nag li ma jaaxal ci gars yi moom ren kenn demul Casamance nag dem campagne xam nga tax waaye nañu dem Casamance jàmm rek fa ne donte duñ fa am dara waaye nañu dem doxantu rek loolu yàqul dara ci campagne bi ñaari fan ak genn wàll wala ñetti fan yi de ci campagne bi lii mooy programme bi kon li ñu war a waxtaan ko daal di euh, wootewaat jàmm. Hmm. Euh, ñu woo ay militants am également ngir ñu delluwaat euh, cam delluwaat di campagne comme ni ñu ko tàmbali woon. en tout cas je pense que c' est discours bu ñu doon xaar venant hmm. vraiment du premier ministre gis nañ démb mu am mu amal discours bu responsable mais pour éviter aujourd'hui le pire comme ni ñuy wax la bataille de Dakar. waaw lu ñuy rafetlu la parce que boo nekkee leader aussi nga am kàddu yooyu yëkkati woon wax say militants ak ginnaaw boo xamante ni sa diwaanu Saint-Louis ci ay ñoo xam ni mën nañoo wax ni passif la ñu bokk ñu am ñu bari ñu ci gaañoon ci ay jàmmarloo yoo xam ni dañu jàppoon ni ñi nekk ci coalition sàmm sa kàddu ak takk wàllu ñoo loon def seen caravane loolu daal tey juddee moom nag mi nga xam ni mooy le leader de Pastef en tant que responsable mu woon ay ndawam ni leen jox leen rendez-vous tey Dakar tey bu ñëwaatee ba revenir euh, à la raison xam ni loolu nekkul lu ñuy xaar ci moom mu waat ay militants ak wax leen ni leen. nekkul xeex nekkul ci ay sànnante xeer wala violence la ñu mën a gouverner réew mais surtout la ñuy daakaani baatu askan bi loolu pour man eh, lu ñu rafetlu la beneen beneen bi aussi mooy comme moom ni mu ko waxee démb rek bu ñu topp ay euphorie peut-être am nga ndaw ñoo xamante ni dafa am na ñuy demee mais man dama jàpp ni ci biir waxam comprendre na jeunesse bi ni muy dayoo ku xamante ni boo leen waxee ay rek ñu jug dem parce que kooku boo koy waxal da loo xamante ni tey jii boo amee buy def dara buy am impact rek dina doon impact bu baax. Mm-hmm. mais ñu gis ni également ku ci mel ni ay ñoom Abbas Fall ñoom ñëpp ñu amaat benn discours boo xam ni dañ moom ci moom lañ ñoom loolu la ñuy xaar ci ñoom ak ku ci mel ni ay El Malick Ndiaye ñoom ñëpp loolu la ñuy xaar ñoom kenn ku ci nekk ci leader yi. la xaar ci yow mooy nga fexe ba am mm-hmm. discours d'apaisement discours boo xam ne ñëpp ci gis seen bopp. Mm-hmm. et warul yem rek ci leader yi waa Pastef. waa sàmm sa kàddu aussi gis nañu le maire Barthélémy Dias moom it am na discours. d'apaisement bu mu am yeneen leaders yi nga xam ne bokk nañ ci ay coalition ñoom it dañoo war a génn parce que seen responsabilité la ñu génn def benn message boo xam ni kenn ku ci nekk ci askan wi yaakaar naa waratoo am xel ñaar ci fitna ci élection yi nga xam ne moom la ñu def. Mhm. en tout cas je pense loolu lu am solo la parce que jàmm moom euh, moom la acteur politique yëpp war a war ñaan fi réew mi toll Issa euh, bon maa ngi wax Issa Diène mais Issa Diène mooy seen tête de liste Mamadou mhm. Kassé mhm. Euh, yaay troisième ci liste nationale ànd dooleel liggéeykat yi yéen aussi ngeen bokk ci jonga jongante boobu ngeen di suivre actualité bi euh, tey nan nga gisee li nga xam ne moo xew ci langu politique bi même bu fekkee gis nañ ne euh, premier ministre woote waat na jàmm jàmm boobu daal di amaat yéen nan ngeen di dundee actualité boobu ak ñi nga xam ne ñoo moom ñoom ngeen sekk langu politique bi. waa maa lay ziarawaat di leen nuyu bu baax di wax ne ñu ngi comme ni nga ko waxee ñu ngi nuyu waa ànd doole liggéeykat yëpp mooy euh, mouvement boo xam ne mouvement artisanal la maanaam kuréel wala taxawaay boo xam ne dañu bëgg dem e-, e-, élection législative maanaam ñi tëgg liste bi yëpp ay artisans lañ. ok loolu nag moo wane ne. Hmm. ñun société civile presque wala candidat indépendant lañ dem. ñaareel bi it mooy président Issa Dieye moom mooy candidat moom mooy tëdd liste bi. Hmm. ginnaaw loolu ñu ñëw ci li nga ñu wax comme actualité bi nga xam ne am na depuis barki démb yaakaar naa la commencé. Hmm. ci affrontement bi am fële Saint-Louis lu jiitu loolu. man damay wax ne suñu homme politique yi rawatina ñi fi nekk di président Ousmane Sonko ak président Diomaye dafa am ñeenti at yi Sénégalais dañoo dundu loo xam ne ñaanuñu yàlla dundati ko. Mm-hmm. ñun ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu koom. Mm-hmm. te ku xaw ku wax koom su amee benn problème dafay impli dafa day day dal seen kaw. Mm-hmm. te su suffit que ñu am problème bi nga xam ne deux mille deux mille dix neuf ñu am Covid. dafa soo gisee ñun ñu am taxawaay bi mooy dañu gis ne ñoom moom politique yi. seen décision seen pol seen discours yi ñuy def ak seen taxawaay yi ñuy def xamuñu ne mi ngi am impact bu metti ci réew mi man barki démb bi ma dégloo président Ousmane Sonko barki démb nelaw ma li may jóge jóge campagne bi mu ko déggee mu ne Barthélemy Dias dootul campagne ak discours yi mu wax yëpp ci biir discours yi ci bare bare ñu mën ko xoolaat en tant que kilifa mën ci taxaw benn bu nekk xoolaat ko. Mm-hmm. ak ci li ñu jógee ni mu ni mu ni mu mettee ci sénégalais yi ci yàq ci ci lu bare bare bare. Mm-hmm. ñu ñëwaat ñu mel ni dafa dañu commencé waat bëgg dundaat loolu. man barki démb bi ma ko déggee nelawuma alhamdulilah nag ba xëy na ñëwaat na ci li mu war a ñëw en tant que responsable ñu koy woo moom président Ousmane Sonko moom mooy kenn koo xam ne ci réew mi jàmmi réew mi moom la gën a yitteel jàmmi réew mi moom la war a gën a yitteel parce que moom dafa taxawoon ne ñii fi nekk baaxuñu ñii fi nekk li ñuy def du noonu ñi ngi noot askan wi ñi ngi ñi ngi ñi ngi sénégalais yi nangul leen loolu jox leen 53 pour cent ci réew mi paase ci ci élection yi ñu paase. Mhm. ñu yor réew mi war a doxal. Mhm. ci ci ñaata at la ñu war a doxal ci juróomi at. juróomi at yooyu war nañoo firndeel ne liñ doon wax ci ñiiru dëgg dëgg la ñoom mënuñu ñoom xamuñu ñoom dañ doon yàq mais est que juróomi at laaj na ñu war fi indi ay comme yi ñu doon indi nii ci élection législative yoo xam ne lu nekk mën na am imaginel moom démb li mu waxoon bu ko defoon démb mu Dias ak tempérament am ñëw fekk ko ci loolu. Mhm. lan lan la war a jur. te du arrangement moom. mais du moom la moom mooy gën a yàqule moom président Ousmane Sonko la. Mhm. parce que lépp moom mooy comptable après. lu Sénégalais di wax bi muy nekk ci pouvoir bi muy nekk bi muy ut nguur ci fitna la ko utee mhm. mais bi mu ko amee ci fitna la ko amee kon loolu moom dañu dañuy ñaan moom ak njabootam mhm. ñoom amatuñu li ñuy prouver ci Sénégal ci wàllu mobilisation benn amatuñu li ñuy prouver ci Sénégal ci wàllu wax discours xam nga lu ñu leen di xaar ci jëf parce que Sénégalais yi nag wàccoo nañu ak ñoom xeex nañ fukki at fukki at yi Sénégal yi jox leen appareil bi gën a mag mhm. ci réew mi ne leen léegi kat li ngeen di wax yëpp gis nañ ne dëgg la kon léegi yéen doxal leen mhm. man dama jàpp ne fi mu nekk li ñu war a def mhm. mooy ñu doxal lii nag ak campagne mënul ñàkk mais dafa am fu mu war a yem warul yegg ci ñu tudd waajuru jàmbur warul yegg warul yegg surtout kilifa parce que dëgg la moom mooy candidat bi nga xam ne moo jiite candidat bi suñu kilifa la ñun ñëpp ñu xeex bi ñu ko tegee injustice sénégalais dañu xeex xeexal ko teg seen bakkan teg seen lépp mais dafa am foo xam ne Sénégal bu ñu la xeexalee ba nga yor li nga xam ne moom moo taxoon nga kii dafa am beneen discours boo xam ne dafa war a ñëwaat waat yow mooy yow yaa war dajalewaat ñëpp nekk njaboot ñëpp du waa Pastef rek la njaboote fi nekk nii dafa war a bàyyi xel ne ñun ñii nga xam ne wala ñeneen ñi nga xam ne bokkuñu woon Pastef daan bàyyi ay yitte di xeex di ko xeexal ñoom ay njabootam lañ te bu affrontement amee ñun ñun artisans yi ñun artisans yi ñun ouvriers ñooy gën a am problème parce que ñun la ñuy yàq suñu alal benn ñun ñoo ñu ci bëree bëri ñun ñooy am woy laago ndax ñu ci bëree bëri ñoom ñooy dem taxawu ci xeex yooyu mhm. kon dama jàpp ne mhm. mën nañ def élection mhm. mën nañ waxante comme niñ koy fàttalee suñu niñ daan waxante ci élection mais nii ñu koy defee nii fa jëm baaxut kon alhamdulilah ba ba rectifié nañ ko. dellu si waat nañ. te lool rek la ñuy xaar ci ñoom. lu muy muy lu am solo ah euh, mais Cheikh bi dañoo dañoo gis ne quand même euh, démb président euh, kii euh, Ousmane Sonko dafa am lu mu wax mooy li tax ñu gën a delluwaat peut-être si ginnaaw. Mhm. bokk na ci ñi nga xam ne ñoo defoon ñaawteef yi foofu ca Saint-Louis ñu bëri si ñoom jàpp nañ leen. donc loolu aussi je pense que bokk na ci apaisement bi un peu. bi ñu mhm. doon bi ñu doon xaar parce que gis nañu ay gannaay yu doy waar yoo xam ne. Mhm. Euh, ja jëlee nañ ko si ñoom yi ñu yoroon yoo xam ne quand même mënoon nañ def ay ñaawteef yu yu yu jéggi dayoo. ah man kay li ma jaaxal mooy. ngànnaay yooyu nan la ko nit mën a yoree ci dëkk boo xam ni comme le Sénégal ci élection législative ci élection législative <laughs> kese parce que bu dee loolu ci ay nit lañ ko jëlee mhm. je pense que jot na ñu def ay enquêtes situer les responsabilités ñu xam kan ak kan mhm. moo joxe armes yi fan lañ jë fan lañ jëlee lii parce que bu ñu demee ba ay simple sécurité boo xamante dañ la former tu n'es pas policier tu n'es pas gendarme tu n'es pas dara mhm. nga yor ay grenades lacrymogènes fan nga fan nga jëlee grenade lacrymogène la fan la ba pare yor ay yor yor arsenal boo xamante ni même boo demee suñu frontière wala nga am foo dem am na ñoo xamante ne sax yoruñu ko mhm. ñii fa la ñu jëlee arme ban kan moo nekk seen ginnaaw kan moo leen jox yëpp pour man loolu responsabilité suñu force de défense et de sécurité la ñu situé mhm. les responsabilités ñu xam kan ak kan moo kan moo laale ci mbir mi mhm. beneen bi aussi mooy le premier ministre Ousmane Sonko wala leader de Pastef comme ñoom loolu la ñu bëgg dañ ko gis bi muy def euh, démb avant-hier mu ni dama may 24 le ministre de la de

parce que lii bu ñu ko anticiper woon bu yàgg du toll fii surtout génn communiquer c'est bien mais mm-hmm. parfois il faut agir mm-hmm. avec responsabilité mm-hmm. ñi nga xam ni parce que gisoon nañ ko bi Antoine Félix Diome bi mu fi nekkee bi fi nekkee ministre de l'intérieur élection législative yi doon am en 2022 mais yii yëpp ñoom dañ ko teeloon anticiper ay milices ak yenn comportement yooyu yëpp dañ ko dindi woon ba ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay coalition ay leaders seeni ay sécurité kenn solu ko woon et pour man loolu yëpp dañoo war di anticiper. Mhm. di fuye nekk warul nekk rek dañuy xaar ba incident am. Mhm. ñu dem di attaquer yenn côté di fuye di def noonu yooyu yëpp dañu ko war a éviter de justesse. effectivement Mamadou Kassé yéen da ngeen am euh, ay <laughs> euh, <laughs> di topp en loolu aussi lu ñu mën a éviter la ah. vraiment parce que je pense que moo xew Saint-Louis ba ñu am ci ñu bëri am ci ay gaañu gaañu nervi yoo xam ne. Euh, waruñu voilà li gën a doy ay nervi rek ngay dégg. voilà ndaw ñi nga xam ne jàpp nañ leen aussi à Saint-Louis ñu bëre sax bokk ci sécurité Bougane Gueye Dany Barth mu ngi ko doon wax démb euh, nan nga gisee loolu yoo man euh, awma ci bon xam nga dañuy man du ma. parce que loolu moom mën a indi violence. waaw man dama jàpp ne. Mhm. suñu rek li ñu maanaam ñi ñu jàpp rek. Mhm. maanaam suñu commenté wu li indi loolu. Mhm. dañuy am problème. parce que réew dem ba léegi kenn ku nekk ne Barthélémy Dias dégg ko. moom moo taxaw publiquement ne man maa wax ne sàmm ñii man maa yor seen sécurité lépp lu xew ci sécurité bi man nañ ma ko laaj du loolu la wax ah. mais kon koy kooku annoncé na ne moom moo yor sécurité bi mais ku wax sécurité xanaa kuy sécurité nit doo dem ak ay loxoy kase loolu moo war a xam ne ñun ñi ñii sécurité am na ndax bu dee nit rek bu taxaw benn day am ku am kàttan lay doon ñaareel ba tamit dina am lu mu fàggu loo xam ne bu incident amee mu mën ko génne mm. kon loolu lu no lu mais looloo looloo am mm-hmm. léegi nag est-ce que dañu war a dem foofu est-ce que dañu war a dem ëllëg si biir suñu demee élection législative en tant que état nga xam ne recul bi mu am moom mu ne d'accord candidat yi yëpp mënu ma leen defal mënu ma leen jox ay ay ay ñu leen ñu leen garder. Mm-hmm. pour ñu pour ñu daw lii. ku ne utal sa bopp sécurité ku nekk di utal sécurité borom sécurité ñu ne ah. Mm-hmm. kenn ku nekk ñu lay mën a utal sécurité boo xam ne ñii nga xam ne mooy bi wala. gendarmerie wala GIGN lu mën doon. Mm-hmm. ñu xool candidat yi nga xam ne laaj nañ sécurité bi parce que am na ñoo xam ne laaj ñu yenn sécurité. parce que ku mel ni ñun nga xam ne amuñu problème ak kenn amuñu danger amuñu dara. Mm-hmm. ñun dañu jóg di waxtaan ak artisans yi di dugg ci seen biir su ma jógee fii mën naa dox amul problème. Mm-hmm. mais ñi nga xam ne am na danger ëllëg biir seen seen seen taxawaay bu dara laalee seen kaw mën na am lu mu laal ci élection yi ñu état bi war na jël seen sécurité. Mm-hmm. man pour man bu ñu defee loolu jàpp naa ne du jar. su boobaa nag képp ku def lii. dañ la war a dal dañoo war a dal sa kaw mais su nit ki ñuy dem ci àll nga nekk responsable. nekk kilifa. dugg ci àll nga am ñoo jàkkaar loo xam ne lu ne mën na am mais nit ki il faut nga waajal sa bopp loolu normal la léegi ñaar benn rek moo mën a am moo état moo mën a jël seen seen seen sécurité. candidat bépp candidat bu ñu valider sa candidature ñu ne le minimum dina la respecter lii si sécurité. nga xam ne su boobaa dina daw lii ñuy def. beneen bi tamit du du problème bi man jàpp naa ne li ci gën a doon problème mooy nan la ñuy campagner. xam nga man dama gëm ne il faut ñu nekk ay démocrates. Mhm. xam nga lu koy indi. non doo fi campagne wala doo fi tuddee kii. Mhm. wala kii nga fi wax. doo fi jaar wala doo fi jaar. Mhm. nit ñi bu ñu d'accordoon que ne man ak yow mën nañ bokk bokk kër mais du ñu bokk nu ñu gisee ci mbir yi. Mhm. ñu mën a di échanger wala ñu mën a kenn ku nekk def caravane ñu bàyyi nit ki mu def li ba pare. sans ñu perturber ko sans ñu am problème problème yi mën na bañ a am boo xoolee problème bi. am mais mais mais mais aussi boo nekkee acteur politique booy dem fenn xamal ne à tout ne mën na la fekk am na ñuy ànd ak yow. d'accord ak yow. am ñu ñu dul ànd ak yow ku ñëpp àndal nag loolu amul mais yow bu dee yow leader nga nga yàgg dem sur le terrain dina am ku naan la Ousmane Sonko dina am ku naan la Barthélémy Diaz dina am ku naan la yéen seen coalition bi loolu mënoo ci dara mais yow yaay yow yaay dilaté sa poitrine comme ni ñu koy waxee nga hmm. am loo accepté am loo nangu mais bu dee da ngay demee fitna da demee ki yenn yi buñ la naaj bi weex weex na rek nga ni ñuul na rek attaqué loolu tamit aussi day indi violence loolu am nga li waral loolu mooy tempérament yi daje hmm. dañoo bokk Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ñoo bokk benn tempérament. Mhm. waaw loolu moom dëgg la moom moo tax. moo benn tempérament lañ bokk moo tax yàlla nañu yàlla dimbali. Uh-huh. ba seen yi ñu bañ a am ay conséquences ci Sénégal yi. Mhm. parce que ay nit lañ yoo xam ne léeg-léegi ni ñuy déggee ni ñoo bokk daanaka daanaka. Mm-hmm. Ousmane Sonko moo xaw a tani tuuti parce que Barth ñun tàmm nañ ko depuis quinze ans yëpp. effectivement même système bii lay doxalee. Ah naa ne ñoom opposants yi. Mm-hmm. war nañu amaat responsabilité tuuti ci réew mi. Mm-hmm. sédd nit ñi. par ak nit ñi nga xam ne kilifa xam ne ñu ngi kër. accord lu am solo la parce que démb sax waa sàmm sa kaddu euh, di seen tête de liste Barthélémy Diaz également euh, yëkkati na ay kàddu parce que jotul dem dañ ko bari barricade këram waaye am na lu mu yëkkati ay kàddu di indi ay leeral lu jëm ci sécurité boobu nga xam ne dañoo wax ne dafa yore ay gànnaay am na lu mu ci expliqué Barthélémy Dias euh, dañu déglu ay kàddam Monsieur le ministre ce monsieur est venu chez moi ici un jour à la SICAP Baobab. Il est venu très tôt le matin, il avait les larmes aux yeux et il avait la peur au ventre. mu dugg fii suma kër fii Baobab. mu ñëw ne ma dañ ma bëgg a rey ma ne ko kenn du la rey mu ne ma dañu bëgg a taal suma kër ma ne ko doomu ndey du ma toog di seetaan ñuy taal sa kër yéen xam ngeen ma lu may wax nii lu may wax nii xam ngeen lu tax bëgguma waat kuy waat mooy comme su amee lu mu bëgg a wante dama ne je le dis su ngeen tegoon fii la Bible ma waat du may wax man du ma fenkat du ma doomu fenkat mu ñëw fii ci suba si en matin na ma dañu ma bëgg a rey ma ne ko loolu munul nekk yàlla du ko seetaan mu ne ma dañu bëgg a taal suma kër mu sàkk ci man ndimbal jamono yooyu nag dëgg la nag jamono yooyu amoon na nu ma doon toggee ma am lu ma def ci moom mu am ay bagages yu ma gis ci man parce que dëgg dañ koy wax rek ñun lépp lu ñu def ci politique dañ koy assumer lépp parce que yàlla rekk dul juum def nañ ay yëf peut-être su dem nekkoon tey amaan nañu defee ko neneen bu ma ko waxee ma am lu ma teg ci loxoom am lu ma ko won ba am lu ma ko jàngal moom te mu may dégg ku nga xam ne ni mosul gis dara ci àdduna àddunam ci ay mbiru gànnaay voici monsieur le ministre de l'intérieur la vérité Cette personne n'est rien doon qu'un bonimenteur qui a fait que vous racontez ce qu'il a vu chez moi et je l'ai kese leneen amu fi dama ko jox ay bagages jàppale ko boole ko ak ay nit ma jàppale ko te aar njabootam te bu may dégg dama ne il faut pas avoir une mémoire courte moom bañ koy jàpp moom ñu jàpp toute sa sécurité Je vous invite, vous de la presse, à revoir les archives. Pendant jours, il a été escorté par tout mon, tout mon muy noonu en fait mu nekkoon Barthélemy Dias doon indi ay leeral parce que dañ ko wax ne vraiment da nga yore ay gànnaay yu dul jeex. Mhm. donc mu doon expliquer ministre de l' je pense que li ngeen doon wax léegi léegi aussi dafa am solo euh, moom expliquer na lan moo tax mu yore gànnaay boobu pour aar boppam donc ça c' est compréhensible aussi ah. des hommes mhm. politiques yàgg na fi am. Mhm. Ousmane Sonko même bu mu nekkee dans l' amoon na ay nervi ñoo ñoo koy topp ba tey. des fois buy def yenn activités yi. léegi euh, euh, da nga da ngeen bëgg a dem assemblée mais bu ñu Euh, dooleel liggéeykat yi ànd dooleel liggéeykat yi coalition bi ñan ñoo ci nekk exactement. waaw ànd dooleel liggéeykat yi ay liggéeykat ñoo ci nekk. Mhm. mais particulièrement ay artisans. mooy mhm. ouvrier yi euh, maanaam ñi nga xam ne mooy artisans yi. Mhm. Euh, ki nekk ci bopp bi mooy président Issa Dieye mooy président union chambre de métier bu Sénégal moo nekk président chambre de métier bu Fatick. mooy vice président union chambre de ci Ioma. maanaam UEMOA. Euh, mm-hmm. man mi nga xam ne maay ki ci topp jigéen la. Mm-hmm. mooy vice président chambre de métier bu Fatick coiffeuse la. Mm-hmm. man maa ci topp man tëgg laa bijoutier laa man maa jiite association nationale bijoutier tëgg table élu la chambre de métier bu. bu Dakar. ba pare yu gérer GIE tëgg table boo xam ne. moom moo taxawal comptoir bi nga xam ne. moom la tëgg yi di jëndee ci matière première ci wàllu gal ak xaalis. noonu la ñu composé liste bi mhm. ba mu wàcc ci suuf bépp corps de boo xam ne mu ngi ci artisanal ñu ci bari ñu ngi ci biir mhm. chauffeur yi ñu ngi ci biir képp koo xam ne liggéeykat nga ñu ci bari ñu ngi ci biir mhm. loolu nag li ko waaral mooy dañoo gis ne réew mi ñun dañoo yàgg ànd xeex ci réew mi depuis 2012 bi ñu xamee ko ba léegi gis ne bëgg sa réew dafa bokk ci jaamu yàlla ci ñu doon xeex 23 juin yi ñi taxawoon ci giri yi ñun ci lañ bokk ànd ak caat yaana caat kilifa euh, yaakaar naa caat dañ ko kii yoon mais ñun ak. Euh, kii Y'en a xeex bu depuis boobu ba léegi bépp xeex bu ñu fi mës a xeex ci réew mi pour liberté pour nit ñi am seen jàmm. pour réew mi jëm kanam ñun dañuy sacrifier suñu bopp taxaw ci kaw taabal mais ba xeex yi mujj yi nii président Ousmane Sonko lënd bi ñu ko njëkk a woo man bokk naa ci ñi taxaw ci buntu këram. Hmm. loolu yëpp dañ koy def Khalifa Sall bi ñu koy tëj ñu ngi taxaw ci palais de justice ba minuit. pour xeexal ko defuñ ko ngir nit ñi mais dañ ko doon def ngir ñoom dañoo jàpp ne ñoom dañ leen war a protéger pour ñoom ñoo war a taxaw Sénégal mais bi ñu demee dañuy dem ba gis di gis gis surtout fan yi bërki démb li am ci coalition yi passé mm-hmm. imaginez coalition bi yi passé pour ñu bañ ci dugg da ngay gis ñoo xam ne juróomi weer ci ginnaaw ñoo doon xasante léegi Barthélémy Dias dégg nga ko mën a doomu ndey mi ngi mi ngi dévoilé mm-hmm. loo xam ne moom ak Ousmane Sonko ci ñoo ko seq mm-hmm. kilifa war na ko président Ousmane Sonko da ngay def démb moom it. démb peut être dem na tudd booy tudd waajuramu góor. ci kilifa moom daanaka tudd na waajuramu jigéen ndax am na lu mu dund lu mu junj na ko na ko boo dégloo moom tontu na fay mais mais ñun li ngay wax nii dañu gis ni ñu yàgg a topp politique Sénégal yëpp même discours le politicien yi am amul lenn lu ci changé yéen lan ngeen di apporter lu particularité loo xamante ni kenn gisu ko woon. foofu lañ jëm maanaam xam nga ñun ay liggéeykat lañ. Mhm. man liggéeykat laa sama ah, place. ñun tamit ay liggéeykat lañ. waaw non li ma bëgg a mooy ouvrier laa bokk. ah ok maanaam ñun ñëpp ay liggéeykat lañ mais dafa am ouvrier koo xam ne comme artisanal quoi. Hmm. maanaam koo xam ne boo xëyee tey man su ma jógee fii damay dellu sama mbaar liggéey. Hmm. sa Dieye mi nga xam ne moo moo nekk titre lycée bi garage am mi ngi en face euh, Masaliku dañu jàpp ne lii li ko war a lépp mooy koo xam ne amul benn profession boo xam ne. taxaw na pour su jógee ci politique bi day nekk nit koo xam ne day delluwaat replié ci famille hmm. nekk père de famille di xool ay doomam ci bët xam lu mu leen ya war a yaree xam lu mu war a jomb ci taxaw man am na loo xam ne jomb naa ko wax ci télé am na loo xam ne jomb naa ko wax publiquement te awma benn responsabilité mhm. kooku après mu mën a delluwaat ci place am liggéey jàkkaarloog nit ñi kon li ñuy li nga xam ne ñun moom lañ jàpp ne ma la ñu war indi mooy ñu tànn ñi nga xam ne ci réew mi ay liggéeykat lañ mhm. moo tax ñu gëm ne assemblée bi ñu jëm mhm. waruñu tànn député boo xam ne député bi danaan waaw man Ousmane Sonko moo wéet ci saalam bind ma man Modou Kassé fa ma toog xaw ma su ma demee député Ousmane Sonko laay doon comme ni ma nekkoon ñeneen ñi nekkoon député Macky Sall. Mhm. même chose noonu la ñuy waxee comme Barthélémy mais bu ñu tànnee ñoo xam ne ñoom dañu gëm ne ñoom dañu dañu war a dara ci réew mi. Mhm. man expérience bi nga xam ne am naa ko ku si néew ci ci tëgg. yàgg a xeex ci comptoir pour Sénégal am comptoir d'achat depuis régime bi jàll ba fi mu nekk nii mais ñun dañu jàpp ne suñ dem assemblée apport la ci assemblée nationale. Mhm. suñ fa demee du ñun ñooy tàccu. lépp loo xam ne état bi indi na ko nga xam ne mu su ne weex na ñu ne weex na su ne ñun la ñu ne ñun mm-hmm. dañ koy indil ay solution ci wàllu économie ci wàllu métier yi nga xam ne moom moo lang moom moo moom mooy cent trente trente cent vingt corps de métier yi nga xam ne ñu ngi ci artisanal mm-hmm. lan mooy problème mu mécanicien yi nga xam ne chaque jour suñuy tabax dëkk nga xam ne code bi dafa wax ne bu ñuy tabax pour dëkk dañoo war a bàyyi xel comme ni ñuy bàyyi stade bàyyi marché bàyyi nangam war nañ bàyyi espace boo xam ne mécaniciens yi soudeurs yi tôliers yi dinañ fa mën a dem te duñ ko respecté léegi bu ñu ko respecté wu lu muy indi mooy mécaniciens yi dañuy dem ci mbedd yi ak ci gox-goxaan yi mhm. di falal suba ñu yëkkati leen mu nekk ay entreprise yu daanu fekk ñoom jël nañu ay responsabilité ba pare mhm. lan lan moo tax fi mu nekk nii menuisier yi ci seen bopp mhm. fi muy wax ak yow nii lu ëpp trois mois ngi nii mënuñu am bant buñu ñu liggéeyee est-ce que politicien bi nga xam ne moom Barthélémy Dias mii lay déglu président Ousmane Sonko lay déglu te ni ñu tëggee nit ñi ñoom ni ñu ni ñu génnee ak fi ñu jaar ci seen dund am na réalité yoo xam ne mënuñ ko xam ci artisanal mënuñ ko xam ci liggéeykat yi. d'accord parce que jege bi war a am pour ñu xam ko amuñu ko. d'accord ah. léegi léegi Kassé dañu bëggoon euh, xam yéen seen position parce que dañu gis coalition yi bari ñu ngi proposer les sénégale bu ñu demee assemblée nationale biir assemblée. comme que ay loi lañ fay vote lañ fay voté yéen yan loi ngeen am yéene voté ko loo xamante ni Sénégal yëpp moom lañ bëgg ñu voté ko bokk na ci ñii wax naan dañuy criminaliser l'homosexualité ñii ne dañuy dañuy def amnistie bi dañ koy yëkkati ñeneen wax leneen mais yéen ban proposition ngeen di def léegi foofu la ñu wutee ak ñoom loolu indi yéen non loolu laa la foofu la ñu ñoom mhm. bi nga njëkk a wax mooy criminaliser euh, homosexualité mhm. yaakaar naa régime campagne yi ko benn de campagne mu ngoog beneen bi mooy amnistie benn waaye daf ne ma wax barki démb lu tax ñun ñu fal ñu mu baax mooy boo jëlee opposant yi dañ naan la dañ ñu war a fal ñun dañ ñu war a fal pour ñii bañ a yàq réew mi ñu ci Barthélémy Dias toog na ci télé lu grave moom mu wane ne buñ ko bu amoon majorité à l'Assemblée day bloqué eh, day bloqué état bi est-ce que loolu moom sénégalais yi bu ñu war nañ waruñu tiit ci kii li mu wax mooy man su ma amee majorité à l'assemblée ñii ñu fal fekk juróomi at duñu liggéey. Mm-hmm. aw yoon dara du la wax mais moom loolu la wax léegi kooku est-ce que war nañ ko fal benn ñaareel bi mooy est-ce que tamit dañu war a jox ñii fi nekk ñoom parce que ñoom li ëpp lu ñuy wax mooy bu ñu amee majorité à l'assemblée dañuy traquer ñii mooy dañuy teg au cours de justice pour mën a traquer ñii. Mm-hmm. te gis nañ ñu ñëpp doon nañ ci président Macky Sall bokk na li yokk catam li gën a yàq gën a yéexal liggéeyam mooy li mu jógtee traqué ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon traqué bi dëgg la tegu ko woon ci yoon moo gën a indi problème mhm. mais ñun dañu wax ne ñun bu ñu nekkee bu ñu demee assemblée. Mhm. duñ ñaar yooyu yëpp dañ leen koy bàyyi ñoom politiciens yi ñun économiquement la ñu bëgg orienter état bi mooy man tëgg bi dinaa dinaa dinaa fexe ba li nga xam ne mosu fi am ci wàllu Sénégal muy or bee nekk Sabodala nga xam ne fi may waxee ak yow nii ñi ngi jël or bi di ko yóbbu Suisse di ko raffiné foofu impo ñu ñun ñu jóge fii di dem di jëndi bijou importé euh, euh, Dubaï wala Turquie mais dinañ fexe ba or boobu état bi taxawal comptoir boo xam ne. Mhm. sénégalais yi dinañ mën a am or boo xam ne ñoom ñoo koy dem jëndi tëgg yi di ko mën a tëgg. économiquement loolu dafa am lu muy fay parce que dafa am ay junni yoo xam ne ñooy dund ci or boobu ñu fexe ba suñu chambre de métier yi nga xam ne moo ŋànk artisanat ñu fexe ba état bi dooleel ko jox ko jumtuwaay boo xam ne dina mën a former artisan yi. former leen yokk leen seen capacité parce que lu tax ñu war a former artisans yi yokk seen capacité mooy danga nga gis benn artisan boo xam ne mënul ubbi benn place amul moyen pour ubbi place mais amul expérience boo xam ne war na ko mën a may pour mu concurrence internationale wala mu concurrence suñu suñu suñu suñu kii yi mais bu ñu joxee doole artisan ak kii chambre de métier yi mhm. dina mën a former artisans yi ci seen biir mbaar yi dinañ fexe ba orienter état bi muy ministre de l'artisanat bu taxawee ñu am na lu ñu ko wax parce que Euh, euh, député du proposer loi rek moo fa nekk. Hmm. mais ministère bu taxaw ñun artisanal ñun artisanal liggéeykat yi am na lu ñu leen mën a orienté parce que ministre mine bu taxawee ñun dinañ mën a wax ak moom ci mine bi. Hmm. ministre de l'artisanat mën a taxawee dina mën a wax ak moom ci lépp lu ajuru ci wàllu artisanal hmm. ministre bi nga xam ne moo yor wàllu commerce dina mën a wax ak moom ci ñun suñu tëggee ba pare nan la ñuy fexe ba jaay moo tax ñun liggéeykat yi dama jàpp ne assemble bi bu ñu ko corrigé woon fexe ba soo demoon Maroc barki dem rek maa ngi si waxtaan nga mu ne boo demee Maroc seen assemblée dañoo def ay quota maanaam secteur bu nekk dañu am pourcentage bu mu am ci assemblée nga xam ne ñooñu duñ leen duñ bokk ci ñi ñii kii léegi suñu defoon noonu ñooñu dañoo soxla seen expérience ak seen orientation yi ñu war a def gouvernement bi léegi loolu ñun loolu lañ yaakaar loolu lañ jàpp ne loolu la ñu war a apporter assemblée au lieu que ñu ñëw fa di xuloo ko xeex ak di saagante suñu biir comme lii am ci ñoom seen biir ñun dañu jàpp ne bu ñu ñëwee dinañ fexe ba orienté gouvernement bi ci métier yi nekk ci Sénégal ñu mën leen jàppale ba kenn ku ci nekk yëg si te bul li ëpp ci économie réew mi muy 72 pour cent wala 75 pour cent yëpp ay secteur la safoor yi xam ne fi mu bi cinquième bi safoor mooy jiite taximaan yi ñu ngi dund ay jafe yu metti mais bu boobaa safoor yi dinañ am orientation moo xam dinañ ko def gouvernement bi ba lépp lu ci wàllu transport dinañ ko mën a teg ci yoon régulier ku ci nekk mën a xam fan nga mën a féete mais na la ñu mën a bàyyee clando yi di def lii ñii di def lii ñii di def lii organiser wuñ leen nga dem ci bijouterie yi noonu nga dem ci mécanicien yi noonu kenn xamul kan mooy kan léegi loolu dañu jàpp ne absence bi ñu absence ci yenn di yenn yenn yenn yenn yenn taxawaay yi moom moo tax mm-hmm. moo tax na ñu bëgg dem taxaw foofu orienter suñu état bi suñu yàlla mayee li ñu bëgg mm-hmm. orienter leen ci wàllu liggéey bi nga xam ne ñun ñu ngi ci depuis ay at parce que kenn ku nekk ci ñu loolu état war a def ci ci tëgg yi ci mécanicien yi ci soudeur métallique yi ñun ñu ngi ko doon def ak ak ak suñu suñu manière. Mhm. mën nga jël exemple soo jëlee industrie ci wàllu euh, mine je yii mais boo demee euh, Indien yi fi lépp jumtuwaay bu ñuy liggéey seen mine je yi ñoo koy defar mais ñun suñu mine je métallique yi parfois defar buntu la ñuy defar defar parentère marché nangam te am na yu bare bari yoo xam ne fii. su leen état bi formé woon encadré leen financé leen ñoom mën nañ ko defar ñu koy def made in Sénégal ñuy mën di ko exporter di génne balance commerciale bi day yëkkati ko waat parce que pour ñu mën a am mhm. économie bu taxaw faw ñu mën a def faaw ñu mën a produire ñu am main d'œuvre locale main d'œuvre locale pour ñu mën ko am faaw artisan yi mën a liggéey su nekkee tëgg yi fexe nañ ba ñoom ñu ngi liggéey toog seen mbaari di liggéey mhm. menuisier métallique yi toog seen mbaari di liggéey bi nga xam ne état bi mi ngi koy jox muy marché public muy joxe mu fexe ba artisan yi jot ko jàpp naa ne loolu main d'œuvre yooyu di jóg moom mooy yëkkati économie réew mi mais mm-hmm. réew du ay bor ak ay leb moom mooy yëkkati économie bi loolu nag dañu jàpp ne ñun taxawaay bu taxaw taxaw taxawaay bu dëgër lañu war a am pour mën ko def parce que suñu om politique yi mm-hmm. benn talu ñun mm-hmm. soo gisee campagne yi doo dégg kenn ci campagne yi mu wax jafe-jafe artisan yi léegi nag est-ce que ñu dañu war a toog li gën a ëpp ci réew mi ñoom homme politique yi 21 jours yi ñu campagne yëpp amul kenn ku ci wax ñi ngi saagante seen biir ñi ngi xasante ñi ngi wuññeente ay sutura suñ demee assemblée loolu la ñuy continuer ñun secteur privé bi wala ñun ñi nga xam ne ay entrepreneur yu ndaw lañ ñu taxaw di leen seetaan ci assemblée léegi comme euh, yéen da ngeen war a dem assemblée léegi euh, campagne bi lu ci des euh, daanaka léegi mu jeex lan mooy seen programme instant bii nii Mamadou Kassé comme temps bi mu ngi xooj nañu ba pare waaw programme bi mooy jàpp ne ñun comme wax naa ko léegi programme xam nga dañuy wax député programme am weesuwul lu dul yóbbu ay revendication mhm. ñun li ñu jàpp mooy li ñu jàpp ne ay jafe-jafe la ci réew mi su laajee ñu ñu ñu ñu proposer loi ñu def ko mhm. mais ñun dañu gën a dañu bàyyee lépp ñëpp ñu dem ci damay wax ne deux mille vingt quatre dañu def révolution économique euh, révolution politique mhm. mooy ñu changer système comme ni ñu ko waxee système bi ñun ñu bëgg a def révolution économique mooy ñu fexe ba assemblée boo xam ne lañ fay waxtaanee. Mm-hmm. mooy koom-koom lañ fay waxtaanee. mooy nan la ñuy fexe ba def ba ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci seen i place mm-hmm. di liggéey. Mm-hmm. suñu liggéeyee ñu mën a jaay. matière première yi ñëpp jot ko. parce que problème yi rek lañu am ñun ñun ñoo bokk la ñetti problème yi. mooy matière première. formation financement ak nan la ñuy fexe ba jaay. d'accord léegi nag loolu dañu jàpp ne ministère yi différence ministères yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk loolu mhm. dañuy ñëw assemblée nationale ok léegi orientation yi nga xam ne ñun ñoom la ñu defal mooy jafe-jafe yi nga xam ne fi mu nekk nii koo dem da ngay dem ci mécanicien yoo xam ne benn benn ku nekk ci place mhm. nekk fa fukki at ni muy dundee lay dundee ba tey mhm. te boobu environnement bi ko wër socialement li muy dimbali ci gox bi kooku dañ ko war a jàppale pour mu taxaw. parce que damay damay damay ragal réalité bi dab leen de parce que am nañu ko am nañu ko fi doon jéem. di digge di digge di dégge mais ba ñu demee ba ci ba bi dab leen. di hmm. yëpp dañ ko mujj dañ ko dañ ko dañ ko mujj du mooy. te en tout cas xam naa ne daal lu am lu am lu am solo la. mais hmm. euh, comme euh, temps bi xoj nañu dañoo war a dugg revue de presse jël suñu ñaareel invité. Euh, tey jii yéen ngi campagne bi léegi mu jeex fan ngeen fas yéene dem fan ngeen fas yéene def également seen seen meeting de bon euh, président Issa Dieye mi ngi mi ngi mi ngi defee meeting de clôture am mm-hmm. Fatick. Mm-hmm. fa la koy defee. Mm-hmm. ñuy ñaan yàlla may ko ndam Fatick mu gañ a Fatick. te lu no lu mën a nekk la. parce que yow ci liste nationale bi nga nekk il faut yow moom. Euh, il faut nga xaar waaw man maa ngi fépp man maa ngi ci liste nationale mais sama base Mbàkke la. maa ngi woo tëggi Sénégal yi. di leen wax ne lii ñuy naan. du yëfu politique. ñu dañuy wax ne nekkuñu pouvoir xeexaluñu euh, xeexuñu bi. sax dañuy dañuy bu ñu demee dañuy coopérer ak ñoom. parce que lépp lu ñuy xeexal ci wàllu ouvrier yi ci wàllu artisan yi. Mm-hmm. ñoom état bi ñoom lañ ciy àndal. Mm-hmm. ñoom lañ ci àndal parce que ñun état la mm-hmm. kon ñun mënuñu xeex état. mais ñun nekkuñu opposant maanaam kon ñun li ñu yitteel rek mooy suñu métier moo ñuy yox yóbbu assemblée te fas yéene nañ bu dul commentaire yi ñuy def nii fas yéene nañ assemblée. ñu fa wax lu dul suñu métier parce que métier moomu ñun moo ñuy dundal yaakaaruñu leneen lu dul métier. te fekk amuñu député boo xam ne bu jógee assemblée day dem directement ci mbaaram. di liggéey. wala bu booba du ñu du dina député boobu dina ñu dawal chaque jour nekk ci tele yi di xaste ak a saaga. d'accord kon ñun dañu jàpp ne. Mhm. fi mu nekk nii sénégalais ñu ngi leen di woo ci ñu voteel liste ànd doole liggéeykat yi. Mhm. ànd doole kat yi ngir lan mooy li ëpp ci sénégalais yi. Mhm. ñun ñëpp ay kër goo dem am na benn artisan wala ñaari artisan. te artisan yooyu seen i jafe ñun rek ñun ñoo ko xam. d'accord ñun artisan yi rek ñoo xam suñuy jafe-jafe. Mhm. léegi nag moo tax ñu bëgg am ñenn ci ñun ñoo xam ne dañuy dem assemblée di orienter état bi di leen fàttali jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi am ci biir secteur l'artisanat jërëjëf loolu mooy loolu mooy loolu mooy kii ñu ñaan suñu borom may ñu. Mm-hmm. ñu am élection yi jàmm ak dal. lu am solo parce que nag dañu war a am dal. parce que depuis deux mille dix neuf ba léegi. Mm-hmm. Sénégal ñu ngi am ñu ngi nekk ci crise tout à fait deux mille ñëw. Mm-hmm. ñu ngi woo ñëpp ci responsabilité. ñun ñëpp dañoo am responsabilité ci réew mi ci mu am dal. d' accord Mamadou Kassé coalition euh, ànd dooleel liggéeykat yi mu nekkoon suñu gan ci euh, pàcc bu njëkk bi ci seen matinal matin na euh, si ñaareelu pàcc bi dinañu dalal Omar Sow coalition. jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba euh, loolu léegi lay doon balaa boobu um, euh, dañuy euh, dem ci li nga xam ne mooy revue de presse wax leen li nga xam ne moom la yéene kay xëye tey ji ci mercredi bi dañ koy doore ak yéenekaay bi di euh, Libération Libération moom dafa daal di ñëw ci euh, lu jëm ci ay marché de gré à gré yu ñuy jox euh, construction des universités de Matam et Tamba mu ñëwaat nag lu yaatu ci mbir moomu xam le ne benn homme d'affaires bu tudd Ibrahima Kara Karañara wala moom la ñu daal di jox marché yooyu te moom amul expérience fii ci Sénégal loolu la Libération gën yaatal ci xëtam bu njëkk ginnaaw libération ñu xool beneen yéenekaay le soleil national daal di ñëw ci diffusion des de message de haine et incitation à la violence euh, ci jamono campagne électorale bi euh, média yi moom nag le ministère le ministère de la communication euh, daal di interpellé ak li nga xam ne mooy seen ay responsabilité rawatina ak ay taskat xibaar Ousmane Sonko daal di exiger nag application loi ak woo itam militant am ngir ñu dal Barthélémy Diaz moom daal di nag convaincre ñi nga xam ne ñooy Dakarois ngir ñu votal leen loolu itam mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéenikaay bi di le soleil national la beneen yéenikaay ba tey di euh, Walf Quotidien Walf Quotidien daal di ñëw ci tension politique bi nga xam ne moo am jamono bi ci réew mi diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz ñi nga xam ne nag ñoo ngi weccoo ay kàddu ku nekk rek di yëkkati ay kaddu jëmale ko ci sa morom loolu itam yéenikaay bi di Walf Quotidien xëy na ci mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéenikaay bi beneen yéenekaay di Vox Populi bi nga xam ne itam dafa daal di ñëw ba tey ci euh, violence euh, tension politique bi ginnaaw euh, kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yekkati woon na ko jamono bi daal dal daal di amaat ci espace politique bi diggante Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz waaye kii di Barthélemy Diaz mu ngi joxe rendez-vous tey jii ak suba ak vendredi également fii ci Ndakaaru lu jëm ci seen coalition sàmm sa kaddu. beneen yéenekaay du Sud Quotidien bi nga xam ne dafa daal di des ba tey ci violence électorale bi classe politique bi nga xam ne jamono bi mu ngi euh, am euh, mu ngi faire face à ses responsabilités noonu la ko yéenekaay bi daal di waxee euh, lu toll ci 81 individus yoo xam ne dañ leen daal di interpellé foofu ca Saint-Louis Ousmane Sonko daal di renoncé moom ci riposte bi nga xam ne waxoon na ko dina ko amal jàmm daal la daal di woote waaye tamit appel général au calme loolu itam mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéenekaay bi du Sud Quotidien beneen yéen di l'enquête bi nga xam ne dafa daal di ñëw ba tey ci violence yi attaque ak menaces yi nga xam ne am na xaaro sur la violence noonu la ko yéen kaay bi daal di tuddee lu toll ci 77 euh, individus yoo xam ne dañu leen daal di interpellé ñu nekk itam ay garde yoo xam ne dañoo bokk ci kii di euh, Barthélemy Diaz ak Bougane Gueye dani yéen bi yaatal na ci bu baax a baax ci violence yooyu amoon euh, foofa ca Saint-Louis ñëwaat na ba tey ci kii di Mamadou Moustapha Ba nga xam ne dinañ ko jëb levée du corps bi tey la lay am euh, foofu ca hôpital militaire bu Wakam beneen yéenekaay di le quotidien national daal di ñëw ba tey euh, ci violence yi diggante Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz bi nga xam ne nag démb Ousmane Sonko dafa daal di renoncer ci meeting bi nga xam ne bëggoon na ko amal foofa ca Baobab kii di Barthélemy Diaz moom itam daal di rek euh, weddi. kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati woon na ko di xamle am na ay gannaay yi nga xam ne yor na ko société civile daal di condamné eh, série d'attaques yooyu nga xam ne nemmeeku nañ ko 81 personnes ñu daal di leen interpellé foofa ca Saint-Louis loolu itam yéenekaay bi di le quotidien xëyee na ko mu ngeen ko fekk nu mu gën yaatoo ci biir yéenekaay bi eh, beneen yéenekaay di eh, l'observateur bi nga xam ne dafa daal di ñëw ci kii di Nabou Leye Nabou Leye nag liberté liberté provisoire bi nga xam ne jox nañ ko yéenekaay bi nee asile maanaam moom na Nabou Leye euh, delluwaatam ci kaso bi euh, lu mën a nekk la bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi ndax risque yi nga xam ne moo am ci boobu boobule euh, liberté provisoire loolu itam mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéenekaay bii di l'observateur beneen yéenekaay di euh, L'As quotidien L'As quotidien daal di ñëw ba tey ci euh, Sonko bi nga xam ne dafa daal di euh, demander kii di président basiru Diomaye Faye ngir mu jël ay responsabilité am lu jëm nag ci li nga xam ne mooy violence électorale bi loolu itam L'As xëyee na ko mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéenekaay bi di L'As quotidien beneen yéeni ba tey di euh, les échos bi nga xam ne dafa daal di ñëw lu toll ci quatre-vingt-un individus yoo xam ne dañu leen daal di teg loxo euh, foofa ca Saint-Louis 77 garde du corps de sàmm sa kaddu noonu la ko yéeni kaay bi xamle euh, ñu daal di leen teg loxo foofa ca Saint-Louis Sonko moom daal di rétro pédalé Barthélemy Diaz contre attaque loolu itam mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéeni kaay bi di les échos